bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi wa kafa wassalaatu wassalaamu ala nabiyihi almustafa wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa man istafa badaxtu bi bismillahi amri muhamdillah wa bat u bi bismillahi yahmadu mawila maa ngi tàmbali samay kàddu ci tiru sun borom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla di julli di sëlmal ci ab yonanteem ak i ñoñam ak i saxaabaam ak xadimam ak képp kum tànn ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyoob islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala nu am mbégte delsiwaat ak yéen tey juróom ñaari fan ci safar nu fas yéene ñëw waxtaan ak yéen diggante Serigne Touba ak 18 nombre 18 xam nga 18 dafa tolloo ak turu yàlla bii di xayyu yaa xayyu boo ko adadee fukk la ak juróom-ñett xaadem dellu ko 8 la yaa ngi fukk la muy 18 turu yàlla wu am solo woowu turu yàlla woowu nga xam ne. bare na ci alxuraan lu muy ànd ak alxayuum alxayul xayuum nga xam ne ñëw na ci alxuraan ci ñetti barab yu bokkul te mas nañoo laaj yonent bi ismullahi al ahsam mu ne xool leen ko ci ñetti saar ñetti saar yëpp dafa am turu yàlla bi di alxayul xayuum kon xayu mooy 18 18 bi nag sëñ bi da cee am jagle kenn ku ne xam na ne sëriñ Touba 18 safar mooy bis bi mu génnee dem ci tukkib géej gi tukki boobu nga xam ne bu amutoon dara duñu jar bu amutoon du baax ci nun kon tukki boobu ci dix-huit safar la am xarajtu yawma sabti saamina xasar li xidmatil muxtaari fi shahri safar waaye Sëriñ Tubaa nattu yi nga xamee ne doon na ko xaar ngir bëggoon a bokk ci waa ahlu badar te bokk ci nag ay nattu rek moo ko koy may natt yooyu 18 safar la tàmbali ci bisu 18 la tàmbali waaye 18 boobu dafa topp Sëriñ Tubaa gis nga 18 safaru jey sasin ci la natt bi tàmbali waaye 18 safar day sasin 1314 ci gàddaay bi bim delsee natt yi dañ koo ful fukki yoon 18 safar xëy sasin bim delsee nattu yi dañ koo falaat fukki yoon kon ndekke sëñ bi 18 safar at mu jot rek bu 18 safar ñëwee nattu yi dañ koy gën a fulaat gën koo yokk gën a tar gën a metti noonu la sëñ Tuubaa sax sax ba ci safarul xaraaj at mi mu génnee xas yi rek taaba safarul xaraaj at moomu ci la nattu yi soog a jeex wala bu la neexee nga ne tamit ci ni seex Muhammad Lamin Jóob Dagana nettalee ci minihul miskiya ba ci safaru masasin 1340 ci gàddaay bi di tolloog 1921 nga xam ne sëñ bi dafa wax ne fukki fan ak juróom-ñett eh, ci safara jey sasin ci la natt bi tàmbali ci la dem ci géej gi waaye fukki fan ak juróom-ñett ci safaru masasin 1340 ci la natt yu jeex kon ba tey 18 safar. ci la nattu yi ñu doon teg Sëriñ Tuubaa jeex waaye 18 safar en même temps mooy yow mu axsil jasaa i wasawaa bi euh, ci la nattu yi jeex euh, ci la xat-xat yi jeex ci la sëñ Tuubaa jot fay gi sëñ Tuubaa ci 18 safar la ko sun borom jox fay gi fayuk nattu yi ak coono yi ak balaay te saa yu 18 safar ñëwatee sëñ Tuubaa la ko sun borom joxoon la ko sun borom mayoon da koy fulaat nim doon fulee nattu yi nim doon fulee nattu yi di ko fulee eh, Euh, balaa yi noonu tamit la 18 safar doone bis bu ñëw ginnaaw safarul xaraaj saa yu 18 safar ñëwatee sunu borom day dolli euh, ay mayam sëñ bi sax wax na ko wa fi kulli saharin saydu rëb yi wa fi safar kon ca 18 safar gune ak dolli ko tonowoom dafay gën a fes waaye 18 safarit ci la sëriñ bi gane àddina ci benn riwaaya ci riwaayaat yi am ci ganek àddina ak sëriñ bi am nañu wax nisfu saxbaan am nañu wax xisroona muharram waaye am nañu wax ne Euh, sëñ bi mi ngi gane àddina ci fukki fan ak juróom ñett ci muharram ci muharram bu ñu demee ci nett li bi si iblaat waxoon te sëñ Tuubaa waxoon yonent bi ne ko fukki fan ak juróom ñett fukki fukki ñetti weer moo dox sa diggante am ñeent fukki at te loolu kooruk bay sasin la kon day mel ne sëriñ bi ca muharram ja lay am fan uh, ñeent fukki at waaye sëriñ tubaat mu ngi wàcc ci liggéey dajeek boroomam bis ba mu doon ñaan naan yàlla na nga def bis ba may dajeek yow mu doon bis bi gën ci sama bis yi bis boobee fukki fan la ak juróom-ñett ci tam xarit kon gis ngeen fukki fan ak juróom-ñett uh, ni mu kiyee uh, sëriñ Touba ci bis boobu di 18 safar ci la sëñ Touba amee ci sunu borom ijaaba ci la amee euh, ridallahi taxalal akbar ci la amee an nafxul kaamil addaimi xaalan wa maalan ci la ko sunu borom wuyee ci la amee ngërëmal yàlla ci la amee njariñ lu mat sëkk lu dappetowu ci li teew ak ci li ñëw ci la amee barke bu bu yaatu zaxiran wa ci li teew ak ci li nëbbu waaye dix safara safar wala waaw ci dix-huit fukki fan ak juróom-ñett ci la sëñ Tuubaa amee bokk ci waa ahlu badri nga xamee ne moom la bëggoon ba tax mu doon ko wax yorante bi ci ixtikaaf bi mu defoon ci jàkkee daaru Xudduus ba waral nattu bi mi ngi ko am ci dix-huit safar boo demee ci minnihul miskiya fil xawaarixal mbëkki yi nee na keroog bisub jeewal sunu borom daawax wax waa ahlu badrin ne inna abdi haada wa xadima rasulihi axrajahu lfujaaru fa saara munfaridan fashhadu bi anni jaaltuhu minkum sama jaam bii di liggéeyaakatu sama yonante bii kàccoor yi ñoo ko génn mu ne cundung yéen waa ahlu badrin na ngeen seede ne man yàlla def naa cheikhul xadim mii mu fa xaalu xabil naa waradina ñoom waa ahlu badri na nangu nañ gërëm nañ yow yàlla yow mi gàccal yëfëri na nga ne benn noon du jëmale sëñ Tuubaa lu lu dul ñoon ñoo koy gàccal ci yow fashhad lanaa yaa muxsiyal kaafiriina bi annahu laa yatawajjahu ilayhi aduwwun bi maa bika waaye bu ñu fàtte ne bisu 18 safar boobu ci 1300 1313 ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal sëñ Tuubaa kaaraange goo xam ne ni maani xan la kaaraange goo xam ne dara mënu koo bët ba noppi na ko im imsi laa tax sa daraan wéyal bu ragal bu ragal lor wala imsi laa tax sal xarar wéyal bu ragal lor kon gis ngeen 18 safar mu ngi noonu ci la nattu bi tàmbali 18 ci la natt bi tàmbali 18 safar 18 safar ci la nattu yi jeex ci la pay gi tàmbali kon 18 safar dafa ala dawme ci la nattu yi tàmbali ci la nattu yi jeex ci la fay gi euh, ñëw ni ko si yëpp daal waxee ne 18 safar saa yu masaani ñëw natt yi day dañ koy ful dañ koy yokk nee na ba ci njaareem sëñ Tuubaa toog 18 safar ñëw muy xaar natt yi di xaar coono yi sun borom xamal ne ko xamal ko ne ko bis bii kat bis ñi kat tey natt yi jeex na fay gi moo tàmbalee ñëw bis boobu la sëñ Tuubaa santaane màggal gi kon bisub 18 sëñ Tuubaa nee lu ma am ci laa ko am yéeni taalibe yi nu ngeen am ci ngeen ko am kon 18 daal mi ngi noonu euh, sunu bis la bisub sëñ Tuubaa la nombre 18 it dafa lënkaloo ak sëñ Tuubaa wax naa ne ci la gane àddina ci benn riwaay bi ci la génn àddina ci la dem euh, génn àddina gi moom sëñ Mbàkke bu sa wax na ko euh, sëñ sëñ sëñ sëriñ Mahamad la ñu Dagana indi na ko suma jumul ci an nubsatul mubaarak euh, kon sëñ Musaa Ka wax na ko kon ci la génn àddina 18 muharram kon mi ngi noonu ci la sëñ Tuubaa gane àddina ci la génn àddina ci la natt yi Euh, tàmbali ci bis boobu lañ ko boole ci waa ahlu badrin ci bisu dix-huit boobu ci la seytaane naagoo ci moom ayisa minallah inda jéewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali sëñ tubaalum am yëpp mi ngi ko am ci dix-huit safar euh, ñuy lu ñu am yëpp ñu ngi ko am dix-huit safar kon dix-huit safar mooy xayyu safar moo tax màggal gi dafay dund at mu jot ndax turu yàlla yu mu tamal di xayyu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.